sant ñëpp li nga wax léegi. Mhm. ci lislaam mhm. bërki démb waa kër waa dina Medina Medina Baye da ci am mhm. ku ma woo ku ñëw sëñ Amidou Niass maa ngi koy nuyu bu baax. fekk may nettali njuuj njaaju sëñ Moussa Ka bii mu ne ma da ngaa tudd sëñ Ahmadou Chérif ma ne ko waaw man dama doon firi waxi sëñ Moussa Ka mu ne ma xanaa xamoo ne ni bu waa Touba jàllee ci bëgg. ci sopp nun ñii noonu lañ la soppe mhm. dama dañ lay esthéti di wax ne gànna nii mu bëggee nii mu bëggee sëriñam na ngeen ko roy ci bëgg seen bëgg bëgg seen sëriñ mhm. Mhm. kon maa ngi leen di gërëm ñoom di leen jéggulu di leen sant di leen ñaan ndax ab jullit ab jullit ab julit li mu bëggal boppam rek lay bëggal mbokkam waaye yar boobu ma seetlu ci ñoom ak dal googu ak teey googu nga xam ne ku la ci jot buy wax ak yow ci yiw lay waxee yow ak dal loolu lu ma marqué la lu ma frappé la mënuma leen a xàmmee waaye sëñ Amidou Niass moomu maa ngi jël nuyoo bi ak siyaar bi teg ko ci loxo ak jégalu gi yëpp maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy teg ci loxoom di leen sant di ko boole mbooleem mm-hmm. ñëpp di leen gërëm mm-hmm. di leen sant